man maa guy gi. waaw jàpp daan rek. damay set waaw damay set bi. waaw dama xam ne maa ko dàq ba rek. dama kaa daw faaxan mu bañ ma daw dugal loxo gauche jàpp mu dëgër ma ngaan loxo droite bi ma xam ne jàpp na su ma du yëkkatee sama épaule day jóg ma daw takk ko benn ko maa daa ko bëri li ma wax ay technique la de barke yonente bi comment win sëkk laa bëggoon ñu boole ma si wala bu laajee dóor mu daan dama koy dóor mu daan sama ko attanu ko nee na kirij la man kirij kalandoo man da kirij camion camion la ah. man remarque la di con booy jay kar mu so kii du dara day jóg ci kaw kirij cinquante tonnes kirij cinquante tonnes day jóg. non xam de fii rek lan daje mais dama koy sembi dama koy sembi man sama turam daal la lu ma jàpp de damay buddi dama koy buddi maa ko wax dama koy buddi ci waaw dama koy sembi <laughs> loolu jëlal jet bi Samba Ndiaye ñëw ma dal seen. production commune Tral le village natal à Mboul donc combat bi mën naa ko organiser bii mooy deuxième édition bi j'espère que ren laa dugg ci làmb am sama promoteur am sama licence promoteur fas yéene dundal làmb ci gox bi ba tax na ñun lépp lu ñuy jàpp rek dañuy ñaan mu dem ci kanam. j'espère que ñun ñoo ngi ñaan bépp koo xam ne mën nañu ci jàppale ñëw soutenir ñu ci ci initiative bi ñuy def. lii moom vraiment làmb ji jaar na yoon te du lii rek lay fas yéene def bëgg na def yeneen programme ci fan yi encore bëgg a toogal population bi ci Sénégal toogal ci euh, fi commune dëkk yëpp dëkk bu nekk li population bëgg dina ci jublu def ko ci ñu itam dañuy dëkkandoo ak moom dañuy fas yéene gis liggéeyam jaar yoon ñu ànd ak moom di ànd ak moom liggéey bi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm 2STV yi vraiment seen liggéey rafet na. kàddu mbégte la. ak itam kontante ci combat bi nga xamante ne El Hadj Diouf production eh, def na ko pour eh, pare nañu ko ñu di ko ci sant di ko gërëm. te bëgg naa itam ñu gën a jàppale làmb fii ci village yu Kër Moussa fii ci commune rurale Kër Moussa. lutteurs yi ñoo ngi leen di ñaan ngeen def làmb ji. ci fair play di wax jeunesse bi vraiment kontaan nañu trop service d'ordre bi jërëjëf la télévision 2 jërëjëf. waaw kon mbokk yi ñu ñëw ci wàllu programmation ci biir Bantamba ñu xamal leen ca Bakel drapeau Abdou njaay sunu directeur Abdou njaay sunu xarit Abdou Ndiaye mon fils drapeau nag ma ngay am ca Bakel. bu neexee yàlla di 17 lay doon mu ne combat boo xamante ne nii et doomi Bakel ñoo daje ñoom it ànd fas yéene koo sargal ndax liggéey bi nga xamante ni ay waajuram ay maamam liggéey nañ ko ci làmb liggéey nañ ko ci réew mi liggéey ko ci wàllu administration loolu nag le 17 la ca Bakel grand combat ba nag Baye Makhtar bu écurie Waalo moo koy bëri ak Eumeu Sène bu écurie Bakel ñu ngi leen di jox rendez-vous mu soobee yàlla 2STV dina fa teew ngir lépp lu fa am ñu indi leen ko ca suma drapeau la ndaxte ku tuddee drapeau Abdou Ndiaye tuddee nga ko képp liggéey 2STV bu leen fàtte ci week-end bi ca Parcelles Assainies drapeau El Hadji Bécaye Mbaye kooku nag bu leen soog la bu soobee yàlla ca Parcelles Assainies ñun ñëpp fa la ñuy teew képp kuy sama xarit képp kuy fan si club Bécaye képp ku bëgg làmb maa la fay woo ñu daje fa bu neexee yàlla ndaxte làmb la joo xamante ni làmb ñu mag la père dañoo sonn ci combat bi billaay walaay père Jalil lu metti la ñuy dañoo liggéey gisoon nu ñu billaahi dañoo liggéey lii yëpp kii Jalit 2. billaay dañoo liggéey ba tas liggéey bay péréte xanaa tey ndam rek billahi tey nu ma génne la kër di gërëm waa Sam Sam bu baax jàpp nañ ci combat bi Père Jali Birama waa Mbul jërëjëf am jërëjëf euh, Ali Dia jërëjëf euh, Babacar sunu monteur mbokk yi tey gis ngeen émission bi ni mu tëdde tey wax nañ leen ko dañoo ñëw fekk si un ancien champion koo xamante ne nii defar na lu bari ci làmb ndax tey bu ñuy wax làmb loxoom sori na ci ndaxte xëy na bu dul première école de lutte bokk na ci yi fi jiitu te gën ci fës ndaxte fexe na ba liggéey ba champion génn ci ay champion génn ci ñu nuy woowe roi des arènes génn ci kon yaakaar naa làmb amel na ko njukkal muy Balla Gaye dañ koy tàggu kàddum bu mujj rek mu wax nu ko laataa ñuy dem ñuy fàttali alaaj Papa Dieng la ñu àndal ndem ngem mi ngi toog à côté xelam mi ngi ci biir reportage bi ñu am mbégte lool alaaji Balla kàddu. nañu bàyyi féewale bi bàyyi na xaajale bi ndax liggéey mooy defar réew te it kilifa bu jiitoo te amul jàmme réew mi du baax kon nañu ko ñaanal jàmm béykat jërëjëf Balla jërëjëf mbokku téléspectateurs yi wax na dëgg ñuy gërëm bu baax Seydi ma nga ca Maroc. di taalibe di sëriñ bu baax di koo xam ne jàppale Balla gay wax na ko wax na dëgg ay nagak ay xarak rayoon na ñaari nag rey fukki xar ak juróom keroog bi bàll Gaye daanee Yékini ca Maroc ñu ngi ko ci gërëm di gërëm Jabel Combaan moo nekk jaraaf bu bees bu Tëngéej ndaxte dem nañ keroog ci xew-xew boobu nga xam ne ñu ngi ciy sargal lébu yëpp Tëngéej képp di ci sargal ma koddu jeng doomu Tëngéej di ci tag sargal bu baax Ibrahima Diop Cheikh Ibrahima ñu ngi koy sargal Iba Jong Gaucher ñooñu ñëpp di doomi Tëngéej yoo xamante ne nii taxaw nanu ci li nga xam ne moo de sargal gi doon sargal jaraaf Jabel Combaan di leen fàttali yéen waa Tëngéej nag am ngeen bis muy le 15 juillet mu di bisu ajaratu xaar may ma jaaga di bis boo xamante ne nii Gris Bordeaux Modou Lo ñoo koy bëre et 2 tëgg ko ànd ci ak Luc Nicolaï mu di bis bu mag. mbokk yi Bantamba lii la leen indiloon ñu am mbégte lool nag ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu làmb waaye bu leen fàtte grand comba 100 millions comba combat 80 millions injustice la nanu yërëm xale yi bëri petit combat ñooy feesal stade ñoo gën a néew lu ñuy fayeeku CNG bal bi mi ngi ci seen camp yéen rek yéen a mën a jëndi injustice bi ne ci làmb jël leen seen courage avec vos deux mains defaraat làmb dafa jot Bantamba ak 2STV dañuy tere kuy dawal. téléphone parce que yow da ko tàmm. il paraît que ñëpp nee nañu da ngay téléphoné di dawal. yëpp xanaa yaay ñëpp. yaay ñëpp. yow yaay ñëpp xanaa. mbaxana bi kese. kese kay. et eh, Dolf. nam naa leen. aar ma dugg lay takk taxawal yow. takk taxawal tey maa ngi yow eh, sa waa ji am na combat. booy bu garaaw ngay bëreel. mais Modou nam nan la. ay raw bi waay. ah. ay ma fa am. Eh, mais dama lay laaj yow def États-Unis lu ma doon def entraîné xanaa entraîné noppalu. entraîné noppalu ci ban xaalis. parce que états-unis dafa ah, sama xaalis xanaa. <laughs> FM Sénégal fële ca arène Sambay sàll Batika ak dal jàmm ñoo fay bëree xam ngeen ni foofu buur géwalu nu fay toogal te moom lu xew caaro yi dina ko indi lu xew ci banlieue yëpp mu indi ko yàqul làmb buur géwal mbokk yi nag Bantamba gis ngeen ko bu leen fàtte le 17 mangue 2 drapeau bi nga xamante ni moom la tëgg tudde ko ki nga xam ne moo di Birame Ngingue te màng 2 wax naa leen ko màng 2 lu mu bëgg ci làmb rek war na ko cee mën a am ndax li mu def ci làmb jar na ko loolu it làmba ngi noonu goo xamante ni bu soobee yàlla dinañu ci dellusiwaat kon mbokk yi Omar Jalang Fam bu ñaamun Casamance moo bekkaay 3 bu Pikine mbooloo dina lu daje di 17 nag xam ngeen ni ci la làmb ju mag yi Pape Cargo bu Tay Sing ak Sokosim bu Balla Gaye làmba ngi noonu joo xamante ni ñu koy yëgal ñëpp ñuy fàttaliwaat li nga xamante ni moo jëm ci ajuma 22 Malick ñaŋ bu Ndakaaru ak Khadim Ndiaye numéro 2 bu Caaroy Géej loola ay combat yoo xamante ni mbokk yi lépp ngir làmb neex ngir làmb egg fi nga xamante ni foofu lañ ko bëggee tey fu mu doon loo xamante ni di leen ci dellusiwaat ndaxte gis ngeen ajarut xaar mbay gis ngeen ñu nuy waajale combat waaye muy Gris Bordeaux di Modou Lô bu neexee yàlla semaine bii di ñëw dinañ leen leen seetali fu ñu toll lu nu indiwaale lan lan nar mu doon bis yu mag làmb ju mag te làmb ju mag gis ngeen nii rek la mën a demee waaye nag déglu ngeen ajarop xaar mbay ma jaaga waaye ñu xool Gris Bordeaux xool mootloo seeni combat xool leen ci am nay kàddu yu ñu fi yëkkati woon bu leen fàttali cey làmb làmb wóor mbokk yi ñu fàttali leen bu neexee yàlla làmb joo xamante ne nii le 15 lay am mu di drapeau et El Hadj Mamadou Mbaye Garmi vendredi la ñu ciy woo ñëpp ngir ñëpp ñëw teew est que yaakaar nga bëreek moom ren. Bégaay mën mbër laa lam mooy suma liggéey man bëri naa pour bëreek mbër yëpp loolu laa wax barki démb ci journal bi suñu lamb bi tey ñu def xam nga Modou Lo pour Gris man je suis prêt pour tous les lutteurs. mais non fii benn combat fi am. <laughs> waaw ah, benn combat fi am même Gris nee na combat bi nit ñi di waxtaane benn la. waaw man du wax daal puisque amateur Moussa la ko wax fii ma ne léegi du mbër ak mbër ñooy tëkkante mooy boole mbër. ay mais làmb boole na leen quand même. waaw waaw waaw làmb boole nañu làmb <laughs> boole nañu. dëkk bi yëpp boobu combat rek la ñu wax mais bi nga seetaanee balaa ñoo ñëwaat carrément ci combat baay ma ñoon giri loo ci wax. bàyyi ma ñoon giri làmb bañ na dafa wuyoo trop làmb lambu la <laughs> ñoom ñaar ñëpp ku ci ne pare nga combat bi.